jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba lii réew Bamba ka moom réew mi Bamba mooy fii ka moom jërëjëf borom Touba lii réew daal Bamba ka moom jërëjëf borom Touba réew mi Bamba mooy kii ka moom jërëjëf borom Touba lii réew Bamba ka moom jërëjëf borom diika moom. jërëjëf borom Touba. taalibe Serigne Touba